bésu tey bii fukki fan ak juróom ci novembre muy bés boo xam ne dañ koy màggal benn pepp bu ñu wax foño yi boole ci ngërëm yi euh, CNCR bi xam ne moo ñu dalal tey di fàttali ne foño pepp boo xam ne la defe naa doo doo ko gis feneen ci àdduna waaw Afrique gi rek la te gis nañ ne euh, wàll bi gën a wow ci Afrique wala bon mënu ma lu gën a raw parce que Sahara moo gën a wow en tout cas bande sahélienne bi foofu daal lay faral di saxe euh, di wax ne nag euh, bés bii muy quinze 15 novembre at mu jot dafa am ñaari kuréel yu koy seex benn kuréel bi xam ne mooy féete ca kaw ñu koy wax seenoo maanaam gis-gisam day ëmb Sénégal gi yëpp ak benn kuréel boo xam ne mu foofa la ñuy defe xumbeel yi alors ren nag yàlla dafa def nag président amoon euh, demoon euh, booru Kédougou waroon dem booru Kédougou fekk jàppoon nañu ne Kédougou lay amee alors ñoom ñu xamal nañu ah président kat dafa war a ñëw ñu ne bon gannaaw euh, kilifa réew mi mënuñu bokk ak moom ay mbir léegi daal kon bés bi nañ ko màggale Dakar alors xumbeel yi léegi bu ci yàllaandee ñu xaar ba ñaar fukki fan ak juróom ñu defe ko ñu defe ko keddu ko